a remarqué que bulletin Benno Bokk Yaakaar départemental dañoo ñëw teg kat yeneen bulletin yëpp ña nga fa ñoom ñu jël bulletin Benno Yaakaar teg ci suuf ba pare démarré vote bi ça veut dire que suñ responsable bu ñëwutoon tey jii di voté tombe ci du fekk euh, bulletin Benno Bokk yakaar nekk fii ci bureau bi te pourtant mi ngi ci sens bureau bi mais da nga koo jël teg ci suuf jël yeneen bureau yeneen yeneen yeneen bulletins yi teg ci kaw ñoom ñuy voté donc ku ñëw quatre bulletins nga fi fekk ngay jël donc on s'est di que c'est pas normal bi nga xam ne aussi wax nañ bañ teg ko dafa ñëw xaaj bulletin yi teg ko cela veut dire que tey code bi dafa wax ne vraiment boo ko tegee ne yëpp boo bokk hauteur eh, mu ñëw xaaj suñu bulletin yeneen ñi nekk à hauteur normale su ñoo ñëwee suñu eh, bulletin boo deful attention sox doo ko gis ñu ne nag on bloque le vote jusqu'à ce que situation euh, vraiment soit réglée suñ ko réglé wul fii la ñuy taxaw on bloque le vote ba situation bu réglé dañoo bëgg agent yi nga xam ne dañ leen a jël ñuy agent administration euh, agent administration ñu def liggéey bi di ci yoon nekk à équidistance des partis politiques depuis campagne bi def nañ ko dans la paix dans la tranquillité kon nag bu ñu egsee ba fii géguñ fi benn coow ñun entre acteurs politique ñoom nañ nekk à équidistance des acteurs politiques c'est inimaginable du juum du fàtte du dara nga jël ay bulletins coalition teg ci suuf yeneen coalition yi nga teg ko ci kaw euh, ku ñëw di bëgg a voter doo fa fekk bulletin bi loolu la ñuy dénoncer on va bloquer le vote dans ce lieu jusqu'à ce que situation soit réglée. dama ñëwoon tey def sama devoir de citoyenne ñëw voter si depuis sept heures maa ngi fi mais remarque bi ma njëkk def mooy bureau pratiquement ba léegi am na yoo xam ne fonctionné wul euh, am na yoo xam ne fonctionné wul moo tax xam naa vote bi euh, yéex a maa ngi nii soog a génn ci bureau de vote bi maa ngi soog a euh, voté si te defe naa heure bi dépassé dañ ko bu yàgg je ne sais pas quel est le problème mais xam naa daal lu yéeme la. dafa amoon waaw bi ma ñëwee ci bureau de vote bi may voté bureau de vote numéro 51 remarque bi ma njëkk def mooy dama gis ñu aligné bulletin de vote yi. jël ay enveloppe yi teg ko ci bulletin bokk benn bokk yaakaar bi bi ma bi ma leen defee remarque bi effectivement dindi nañ ko xam naa seen problème mooy problème espace mais à ma grande surprise dama gis benn bokk yaakaar au niveau départemental seen bulletin yi ñu jël ko teg ko ci gannaaw teguñ ko ci ko taabal ci suuf ko teg te déjà foofu nag laa duggee signalé leen ko te déjà am na ñaañu voté woon ba jàll ba pare après nag euh, ci laa xool euh, ndaw si mu ni continuer leen bureau de vote bi continuer leen ngeen voté man ko noonu il faut ñu arrêté vote bi ba réglé lii ci ngeen dégg tuuti ma commencé di cow ak ñoom nee na xàmmee wuñ ko xàmmee wuñ ko la ñuy wax xàmmee wuñu parce que dañoo nuroo mais defe naa boo nekkee enseignante ñu def la présidente bureau de vote nga am sa secrétaire surtout représentant du Sénat toog def naa erreur boobu warut am ci bureau de vote représentant Sénat mi ngi toog bi may wax mi ngi toog il a fallu que j'appelle le colonel parce que j'avais son numéro personnel ma woo sama waa parti ñu ñëw ndaw si nag li ma wax daf ni continuer le vote je prends mes responsabilités donc comme tu prends tes responsabilités tu n'as qu'à les assumer par la suite nag la ñu ñëw jël bulletin kii benn bokk yaakaar bi liste départementale bi woon ci gannaaw soo koy yëge ci ko mais ci suuf lañ ko tegoon seen gannaaw ñoom loolu du ma ne erreur la mais c'est une faute très grave moo tax ma def appel rek la prochaine fois ñu former parce que ñoom la fa ne xamul mais mënoo nekk président bureau de vote te xàmmeewu liste départementale ak liste communal kon loolu moom c'est autre chose moo tax ma def appel à nos la prochaine fois ki ñuy def ñu def un responsable au vrai sens du mot responsable parce que ñoom état la ñuy liggéey il représente le président de la République il représente donc l' état kon nag kooku te élection yi président dafa def les moyens yëpp ministre de l' def moyens yëpp ñëw fi vérifier kon nag liggéey bi li des mooy ci président bi parce que moom mooy personne morale bureau bi loolu daal remarque boobu daal laa def di ñaan rek j' espère que yeneen bureau yi amuñu problème yooyu waaw daal la